Koor édition 2019 Touba Argentine TV di ci amal ay liggéey di leen fësalal ndogu yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ko yóbbul xalif général des Mourides seen mbokkaaroon si si Alaaji a sekk di ci amal ay liggéey yu am solo ñu demoon ba diwaan bu Daaru Xafoor ci lu soriwul Touba Daaru Xafoor nag di dëkkub maam Saliou mu nekk rakk ci maam Cheikh Ibrahima Fall jamono ji nag ab xalifaam di Serigne Assane Fall ibnu Serigne Modou Maam Fall moom maam Saliou Fall ginnaaw ay weer yi soriwul dara bi fi way juróom bu bàyyi ko di sëriñ Daam Fall mu wuutu ko ci xilaafa gilee ren nag di ndog yi njëkk ci bu toogee toogaayub maam Saaliwu Fall la mu fa yéene na ndog yooyu de ni ko wéy juróomi sëriñ Daam Fall Saaliwu daan amalee noon nii rek la ko fas yéenee wéyalee boobu la liggéey bu ñu sukkandikoo ci kàddu porte problème di Serigne Abdou Lahad Fall xam ngeen ne nag ndog yooyu lee da koy ànd ak seex yi nga xam ne ñoo toppoon maam Saliou Fall daan ko liggéeyal seenu njaboot ñoom it di ci wéyal liggéey bu am solo liggéeyu ndog yooyu lee Serigne bi jiital ci di Serigne Modou Anta Fall xalifab Serigne Abdou Fall moom maam Saliou Fall la waaye xam ngeen ne it Serigne Cheikh Niang ibnu Serigne Modou Niang mi nga xam ne jëwriñ la ci kër Serigne Taïba it yëkkati na ay kàddu ci yooyu la ndogu waaye sëriñ na Fall ibnu sëriñ Abdou Fall moom tamit euh, yëkkati na ay kàddu kàddu yooyu daal ak ndogu yooyu lee ak départ baak ya ci aju ba nit ñu yegsee ci résidence Khadim Rasoul fekk fa sëriñ Cheikh Mbacke Abdou Latif mi nga xam ne moom moo yor yooyu leen ndogu teewal fa xalif général de mourides loolu lépp lañ leen fa séenee dégtal ak télévision Touba Argentine TV إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyoo fii ci Daarul Xafoor di ëttub maam Saliou Fall nekk rakk ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina tey nag eh, di eh, ñeenteelu fan eh, ci weeru koor Euh, di bis bu màgg di bis bu sell euh, di euh, bis bu am solo boo xam ne chaque année waa kër maam Saliou ajjuma ju njëkk ci weeru koor ci la ñuy tàmbali seen ab liggéey fas yéene ko jébbal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne tey moom la fi yàlla teg mu toog toogaayub xaadim rasoul du ñaan sunu borom gën a guddal aw fanam te wéral ay cëram xam ngeen ne nag bu yàggul la fi euh, doomi maam Saliou jooji bàyyi ko te nekkoon ak xalifaam di Serigne Dame Fall moom maam Saliou Fall ñuy ñaan sunu borom euh, yërëm ko euh, te dolli ay leeram te taas ñu si barkeem xam ngeen ne nag ki fi toog toogaayub maam Saliou di première setam di sëriñ Assane Fall moom Serigne Modou Maam Fall moom maam Saliou Fall moom la fi yàlla teg tey mu toog toogaayu maam saaliw xam ngeen ne nag ndog yi macha allah euh, fépp foo dem ci kër njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñu ngi koy amal waaye njabootuk maam yi kenn demul ñu des ñu ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy njabootuk maam gi ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy cheikh yi nga xam ne nii toppoon nañu maam Saliou Fall euh, ba xëy sëriñ bi gërëm leen ñooñu ñëpp macha allah tey seen ak njaboot ñëw teewee li nga xam ne moom moo di liggéey bi ñi ngi taxaw ak ki nga xam ne moo yor kàddu sëriñ Assane Fall mi nga xam ne moom moo di xalifa bi Euh, di Serigne euh, Abdou Lahad Fall di chef de village bi waaye it euh, ñu feggoo ci ak ki nga xam ne moom moo di Serigne naa Fall moom Serigne Abdou Ndakaaru moom it di jëwriñ ci liggéey bi feggoo it ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh nu ibnu moo du Niang moom Serigne Taïba Niang mi nga xam ne jëwriñ la ci biir kër Serigne Taïba moom it macha allah mu ñëw teewee si li nga xam moom moo di liggéey bi. Euh, kon xam naa ne rek du ñu guddal suñu mbokki journalistes yi ñoom it waa Touba Fall FM waa Lamp Fall ñoom ñëpp ñi ngi fi ma ànd ak Alaaji Gora Seck ci kaddu gi seen mbokkaaroon Cissé sëriñ bi Touba Argentine TV ñi ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci weeru koor gi ci première ndog yi nga xam ne yéen a ngi koy amal fas yéene ko yóbbu fële ca résidence Khadim Rasoul jébbal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha muy première ndogu yoo xam ne Serigne Assane Fall moom la toog toogaayu Mame Saliou Fall nga yor kàddoom yan kàddu ngay yëkkati. aùzu billaahi mina sheytaani bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi di nuyu te di leen di ñaanal suñu borom defal ñu jàmm mu mel ni li ngay laaj ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha. xalifa général de Mourides suñu borom yàggal ko fi defal ko wér ak mboolem njabootu borom Touba di ko ñaanal sëriñ Cheikh Jëmm Fall mi fii xalifa général de moom it suñu borom yàggal ko fi lool te ko wér di ko ñaanal sëriñ xalifatu maam Sali Fall tey fii ci Daarul Xafoor suñu borom yàggal ko fi defal ko wér ba yéene ji mu am ci yan bii ko maam yan ñu àggale ko fa mu ko bëgg àggale eh, di ñaanal sëriñ daam Saliou mi nga xam ni moo fi mujj doon eh, doom ci sëriñ Saliou doon wéyal wéyal ndogu yi nii ñu ko daan defee mhm. di ñaana suñu borom oyofal suuf ci kawam te taas ñu ci barkeem ci barke maam Sali faal mhm. mu mel ni euh, sëñ Aroona ni nga ko waxee ndogu yi euh, mi ngi tàmbalee woon ci maam Saliou Fall bi nga xam ne mooy borom dëkk bi tey di rakk Cheikh mhm. mu daan ko def ni nga xamante ne bi noonu la ko magam ju baax ja Cheikh Ibrahima Fall daan defe mu ñëw ma di ko wéyale noonee ba fi jógee Serigne Mour Saliou mi fi njëkk daan ko doxal ni mu ko wéy juram daan doxee ba ba ñaareelu xalifaam di sëriñ Modou Mame Fall mi nga xam ne tey moom moom doomam di sëriñ Assane moo ko mooy xalifa bi moom it ba mu ñëwee noonu la ko daan wéyale ba ci sëriñ Assane Fall Awa Jaxate sëriñ Abdou Ndakaaru ba ci sëriñ Dame Saliou Fall mi nga xam ni moo fi mujj a toog di doomi Mame noonee ñu ko daan doxale euh, ndox it macha allah Serigne daam Saliou moom it bi mu ñëwee euh, euh, yokku na ko àggale ko foo xam nit wax dëgg fa yàlla liñ naan mbirum Serigne bi amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la am waaye fi nga xamante ni bii waaw fu ñu ko doon séntoole ci ci ci jëm kanam ñu ngi koy gis bu baax a baax tey it loolu dara wàññi ko ci ndax li liggéeyal suñu borom la te liggéey bi yàlla kanam rek lay jëm mu mel ne Serigne Assane Fall mii nga xam ne moo fi tey nekk di sët di njëkk a toog toogaayu Serigne Saliou bi mu ñëwee foofee way ñu demee bàyyi woon seen tegoon seen tànk rek foofee la ko teg fa seenee woyal liggéey bi ànd ko mbooleem ak rakkam yi ak setam yi ak taalibe yi yëpp ñuy ànd di ko liggéey liggéey bu sel boo xamante ni bii euh, na ko way juróom daal def rek koy defee ñu ànd ak moom képp koo xamante ni bii daal ah, mbooleem ñi nga xamante ni bii njabootu Serigne Saliou Fall fu fi waay mën a nekk mu seexi Serigne Saliou yeeg yëpp yeeg ñëpp fu waay mën a nekk da ngay ànd ak sa mbooloo ñëw fii ci bisu ndogu yi ñu ànd ci liggéey boobu di ko liggéey liggéey bu sell di ko yettul ki fi nekkal Cheikhul Khadim Khadim Rasoul mhm. loolu it ci lañ nekk nii mhm. te it daal ñi ngi ñaan liggéey bii nga xamante ne bii sëriñ bi tàmbali na ko di première ndog bi mu njëkk a toog yàlla na doon ndog bi nga xamante ne bii daal ah, yàlla na ko yàgg def te nu ànd ko ak moom ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal maamam sëriñ Saliou Fall fa mu bëgg mu àgg fa yàlla na ko sëriñ Saliou Fall àggale te ñu ànd ci ak ngërëm loolu moom la ñuy di ko sàkkul mbooleem njaboot gi mm. di ñaanal mbooleem njaboot gi nag yéene ji nga xam ne am nañ ko ci ndogu yii ñu ngi ñaan suñu borom ñu dem ba jekk ko ni ñu ko bëggee mhm. ba di ko indil sëñ bi sëñ bi di ko ànd ak ñoom di ko togg di ko yëral sëriñ bi mhm. sëriñ bi ci loolu la taxaw dara ñoru ko luy liggéey sëñ bi dara ñoru ko ci loolu la fekk ci way jërëm yi loolu lañ fi nekkoon ba ni ñu wujjee suñu borom mhm. moom it bi mu ñëwee tànk yooyu la jaar ñi ngi ñi nit ñi ngi leen di ñaanal baax ndax li ngeen def lu am solo la ndax jamono àgg na foo xamante ne bi nit ki fépp fu mu mën a nekk rek ak liggéey bu mu mën a doon ah, baax na nit ñi kenn ku nekk fa nga nekk ngay xam liggéey boobu waxtu muy mën a agsi ci yow kon yéen it dañ leen sant leen gërëm di leen ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax fu ngeen bëgg a egg yàlla na fa suñu borom àggale karam Serigne Saliou ñi ngi leen koy ñaanal baax a baax baax waaw di ñaanal mboolem ñi fa teew ñëpp ñu ngi leen koy ñaanal di rafetlu liggéey bu baax a baax a baax xam naa daal Serigne bi wax na ni liggéey bi euh, tàmbali na ko tey ci ajuma ji waaye bu rombee tey ajuma ji fas na ko delloo ci euh, bis yi nga xamante Serigne Dame Saliou moom la ko moom la ko fi bàyyi woon muy gaaw bu ne fas na bu gaaw bi jotee des na ko togg di ko yóbbul Serigne bi ni ñu ko daan defee loolu daal ñu koy jot ñëpp ñu xamee ko noonu. Ah, sababu ñu tàmbali ko tey ci aljuma ji. waaw loolu day mel ni euh, baatin la ndax sëriñ bi ñun nga xam ne ñun daanaka suñu bis bi soriwut suñu yéene moo doon ci bis bu njëkk bi ñu tàmbali ko di ko def waaye mu mel ni sëriñ bi am na sabab bu tax mu nii ñeenti fan yi koor gi ci la koy tàmbali loolu nag mel na ni xam naa ni waxu ko waaye mbirum biir la moo xam ni xam na ni daal am na lu tax mu def ko waaye nag moo xam lu tax mu def ko mhm. lam ciy mhm. na ko am ak ñun ñu bokk ñëpp it ñu ànd ko am ko kon samedi ji sës ci àjjuma ji ko fas yéene wéyalaat wala jeneen waaw jeneen samedi lañ ko fas yéene wéyalaat incha allah di ko def ni ko sëriñ bi daan def mhm. noonu lañ ko fas yéene di ko wéyal incha allah di ko ànd ak boolem taalibe yi en tant que nga yor kàddu xalif bi eh, fës na fépp partout dans le monde ak njabootam ña nga fa mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan Touba Argentine TV te di ay Baye Fall rawatina it ñu bokk ci njabootuk maam Saliou. Mm. yan kaddu ak yan soññee nga leen di wax ci ndogu yi. waaw kaddu yi de mooy soññee rek di soññ suñu bopp. di la xam ne fépp fu waay mën a nekk ci àdduna li am solo mooy liggéeyal sëriñ bi tënku ci ay ndigal te bàyyi ay tere loolu moom fépp fu waay di mën di nekk ci àdduna rek loolu war nga koy bàyyi xel. sëriñ bi daal fi mu teg tànkam mooy liggéeyal sëriñ bi déglu ndigal Serigne Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride di jëfe ay ndigalam lépp ndigal boo xam daal bàyyi koo na fa mi ngi yëgal bépp taalib bi fu waay mën a ne loolu mooy la ko ñor amul beneen soxla bu dul boobu loolu nga xam ne moom moo na ci moom bëgg na foofu taaliba mën a nekk nga bàyyi xel ni foo mën a nekk su ndigal jubee muy koor gi di ndogu yi muy addi ak lu mu mën doon tabaski ak lu mu mën doon rek ci liggéeyu sëriñ boobu nañ ko bàyyi xel xam ni waxtu wu nekk loolu ña nga ca duñ ko noppee di def feeg ñi ngi ci kaw suuf incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi allah muy kàddu yi euh, sëriñ Abdou Lahad Fall euh, mi nga xam ne moom moo yor kàdduk euh, xalif bi di sëriñ Assane Fall moom sëñ Modou Mame Fall xam naa ne incha allahu danañu ànd ak yéen ci ndog yi ànd ak yéen ba ci résidence Khadim Rasoul dégtal leen ko incha allah su ko defee xam naa ne kon dañuy euh, jox kàddu gi rek euh, Serigne Cheikh Niang ibnu Serigne Modou Niang euh, moom Serigne Taïba Niang su ko defee it moom it mu yëkkati ay kàddu ci ndogu yu am solo yi nga xam ne tey ñu ngi koy waajal fas yéene ko yóbbul Cheikh Mamadou Mountakha. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Arona waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. moom daanaka sëñ Abdou Lahad Fall sëñ Abdou Lahad bi mu na lépp waaw bi mu waxee rek wax na lépp ñun moom ay taalibe lañ yoo xamante ne rek ndigal la ñuy déglu waaw ndigal rek la ñuy déglu moom rek la ñuy xaar déglu sëriñ bi wax na ko nu jëfee ko rek waaw sëriñ Assane mii fi ne koy ñaanal moo mboolem doomi sëriñ Saliou bi fi moo soo ne musul law boo xamante ne liggéey nañ ko mu liggéey lu faw xa loola loolu lañ koy ñaanal suñu borom defal ko wér te defal nu ñun dongay xéewal ban mën a liggéeyal sëriñ bi waaw Baye Fall moom ginnaaw lii rek moo am solo déglu ndigal jëfe ko tey ñun loolu rek moom mooy suñu yitte kon ñoo ngi sant ñëpp te li leen sant yéen ñi nga xamante ne yéenay waa Touba Argentine TV sëñ Gora yaak Aaron ñu ngi leen sant bu baax ndax lii lépp ci yaatal liggéey bi Serigne la waaw borom dëkk bii nag di ma am Saliou woon joo xamante ne direct ci Maam ko woon waaye ndax fa ndax baatinam waaye lépp ngi fi kon aajo ba lépp lu ñu naan yéen a koo liggéeyal Serigne borom defal nu ko waaw ñu ngi ñaanal njabootuk suñu Taïba Niang ngi di ñaanal Serigne Cheikh mais ci biir di ñaanal bokki taalibe yëpp waaw ñu ngi siyaar suñu bokki donga yëpp rek waaw jër jërë ngeen jëf waaw Serigne Cheikh wonaa bu ci mënee wax rek baax macha allah kon euh, alaaji Gora dañuy yëkkati kàddu gi jëbal ko Serigne euh, Cheikhouna Fall moom Serigne Abdou Ndakaaru way juram nekkoon ñeenteelu xalifa euh, maam Saliou Fall Euh, su ko defee yan kàddu nga yëkkati ci ndogu yi sëriñ bi bismillahi mina seytaan rajim leen ñëpp kenn ku nekk turam ak santam di jiite ñooy suñ Sidi Muxtaar euh, suñ mun daxaar suñ borom yàgg ko fi loolu te ànd ak suñ seeg dañu ñaan suñu asan xaar bi suñ borom yàgg ko fi loolu te ma mel ne damay waxee ci kàddu gu sëñ mu daan defal xalifa Cheikh Abdoulaye Fall nga xam ne moo yor liggéey bi ñu ko daan defee rek depuis fi waajuróom ba nekkee ba léegi liggéey bépp ci loxoom la nga ko teg suñu daam tamit bu ñu fi ñëwee tamit moom it moom it ndaka noonu liggéey bépp ci loxoom la ko teg kii fi nekk tey si ñaan seen fa ñu ñaan suñu borom yàggu rek moom te bu ñëwee liggéey bépp ci loxoom la ko la la ko teg ñu ak rakam ñu ànd ak moom nekk ci liggéey bi ak mbokk taal bi loolu daal def nañ ko daan defee daal mm-hmm. maanaam ni ko suñ daan liggéey maanaam cheikh fi nekk yëpp daal borom cheikh suñu Saliou kenn ku ne am nga am nga ci ak say ak say taalibe noonu daal la ko doxal liggéey bi nag ñu ngi ci mbokk taalibe yi ak nit ñi. Allah.